Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangi ziar ñep di balu haq ñep di bañ ñep haq ñaan yalla suñu borom bo leñu jéggal euh ma ñëwon rek yëkëti ay cadeau ci amna turu la maison du coran au sénégal tay nak xamna damay indi ay cadeau sante ba paré soko wax ndax depuis aussi ñu taxawal la maison di Coran macha allah yàgg na yàggul mais à chaque fois étape bu ñu tollu rek ñun ñu ngi sentir ni famille lañ ko wax dëgg fa yàlla étape bu ñu mënti toll nag étape bu ñu mën a toll ñu ngi sentir ni benn famille la boo xamante ne ñoom ñëpp seen yitte mooy alquran seen cofeel mooy alquran bëgguñu leneen lu dul alquran. Euh, bu fekkee ni dañu am soxla woote collecte dañuy ñëw ànd si jàpp si ba li ñu soxla yëpp mat suñu amee beneen soxla ci leneen woote si dañuy ñëw jàpp si ba mu mat ba affaire yi yëpp macha allah loolu nag moo am maanaam mu doon lu rëy daal suñu parce que yombul tamit nit ki à chaque fois saa yooyu dund étape boo tollu ñoom ñu ñëw puus la jàppale la ba loolu passé mu suñu tollu fenn maanaam soxla suñu public. wallahi te ñëw ja te ñëw ñu jàppale ñu si lu mu doon nag si conseil si matériel si alal ci lépp ci lu mu doon saa su ne suñu soxlaa ñëw nañu jàppale ñu tey si suba presque euh, si journée bi tey jii li ma recevoir si ay appel xamu nu mu toll ndax suñu page bi dañ ko piraate woon dañu piraté page bi ça fait trois jours euh, xam naa waa ji muy soog a ko commencé def ay publication am benn story bu mu def Euh, image yoo xamante ne daal méngoowul ak ñun lu ñuy def mais li ma jot say appel xaw ma nu mu toll li ma jot say appel xaw ma nu mu toll donc ça veut dire que dafa am daal lu ma lu lu ma def man appel yooyu noonu ma may jot si suba ba léegi seen page bi dañ ko piraté seen page bi nangam ak nangam daf may wane ni kon ñun ñun ñooy ñooy nekk ñi maanaam ñiy gérer page bi ak di si liggéey di nekk si terrain bi mais ndake affaire bi liggéey bi du ñun kase wallahi du ñun kese comme li ma wax sànq rek à chaque fois étape bu ñu tollu ñu ngi ànd ak ñun étape bu ñu toll ñu ngi ànd ak ñun mësuñu ñu seetaan ci dara mësuñu ñu seetaan mësuñu ñu seetaan à chaque fois fu ñu toll lu ñu publier lu ñu def lu ñu nànkam dinañu woote gëstu xool lan la lu ñu si mën a jàpp ñu jàpp si donc nag ñu ngi jéggalu ñëpp yéen ñi nga xamante ne yéen ñu doon topp ci page boobu di la maison du Coran te biñ ko ubbee ak léegi macha allah wax dëgg fa yàlla yàgg na yàggul ñu si doon def ay liggéey boo xamante ne amul dara luñ fay lu méngoowut ak alquran ak sunna amul lenn lenn lu fay dugg loo xamante ne amul relation ak alquran amul. donc lépp bépp changement bu ngeen si gis rek loo xamante ne méngoowul ak loolu war ngeen a xam ni kon moom lu ñun incha allah mais kontaan nañ mu baax a baax a baax ci seen taxawaay ci ni ngeen soutenir maanaam si étape bu ñu toll rek ngeen ñëw wan ñu ni. ñun ñun benn famille lañ loolu dafa sedd suñu xol dafa sedd si suñu xol état bu ñu toll ngeen ñëw wan ñeneen ñun la maison du Coran famille la. la maison du Coran du diw moo ko moom wala diw moo ko créé non non mais benn famille la ñi dañuy joxe seen xalaat ñi yëkkati seen alal ñi yëkkati seen xam-xam bàyyi seen leneen ak leneen ñëw def ànd ñu ànd ñu ñëpp di servir alquran amul benn revenu boo xamante ne ñu ngi koy xaar si la maison du Coran lu dul ñun ñu am ay suñuy revenu bopp ñëw dugalaat ci. mais wax dëgg fa yàlla solidarité bi ma gis dafa sedd sama xol trop yàlla xam na ko donc euh, ñu ngi leen di excuser wu bu baax si passe boobu nga xam ne piraté nañ ko mais teewul suñuy ay activité day continuer di dem suñu liggéey loolu du ko taxawal ndax euh, ñoom seen mission la ñuy doxal ñoom ñuy piraté yenn page diine yi seen mission la doxal donc ñun tamit ñoom seen mission bi ñuy doxal du tax ñun ñu arrêté suñu ay mission dara du tax ñu arrêté li ñuy def incha allahu rabbi donc encore une fois message samay kàddu yi kàddu sant la kàddu yoo xamante ne mbégte la boo xamante ne daal ñun am nañ ko lu la maison du Coran ma ma koy wax di ko jaarale si sama làmmeñ ànd si ak sama frère Abdou Aziz kamara ak ñun ñi ko séq ñëpp wax dëgg fa yàlla macha allah daal kontaan nañ bu baax de xam naa dinañu am nañ beneen page bu ñu lancé waat muy la maison du Coran donc mun ngeen a toppaat foofu suñu ay liggéey du ñu deñ si liñ doon def dara duñ ci dindi lu dul ni dañ ñoo dugal bàmmeel incha allah kontaan nañ bu baax ci seen solidarité kontaan nañ bu baax ci message yi ci appel yi wax dëgg fa yàlla su ma pirate metti woon sax man fi mu ne metteetu ma ndax gis naa duñ ma <laughs> solidarité bi ngeen am daal loolu neex na ma torop yaa dëgg fa yàlla dafa ma neex torop depuis le début nag wallahi alazim si zéro bi ñuy commencé zéro ba fu ñu toll étape bu ñu toll rek ñu ngi ànd ak lolou contane nañ ci bu baax di ñaan yalla yalla ay kasse tax ñuy def ñu bañ ci ben yoon bañ ci yek suñu bop bañ ci gis suñu bop te suñu borom may ñu ak nangu te jéggal ñu euh mën ngeena continuer aussi di suivre activité la maison di di, di coran si benen page bi nga xamantene créé nañ ko dina partager lien bi ak yoy yep ngeen dem fofu ngeen abonner page be nag incha allah bu ñu defee yittee ba gis ni jàllul ne mënuñu ko récupérer waat ñu ngi sàkku ci képp koo xamante ne abonné woon nga fa képp ku mu mënti doon nga signalé ko partagé ko wax tamit ñu signalé ko pour ñu bloqué ko parce que tamit du leen may occasion fu ñu jàllalee ñoom seen li ñu bëgg di ko jaarale ci ñun suñu liggéey bi doon def donc euh, ñu ngi ñaan daal bu bu bu dellu si si suñuy loxo ngeen signalé compte boobu ñu bloqué ko incha allah. jazakumullah xayran yal na yàlla fay leen encore une fois kontaan nañ bu baax ci seen taxawaay ci jàppale bi ci lépp daal yal na yàlla fay leen aywa salaamaaleykum wa rahmatullah